mafatihul bishri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna wa taslimi ala muqimi sunna ci ndigalul sama mag ji rek maa ngi nuyu bokki jullit yi ak bokki taalibe yëpp di ndokkeel waa télévision bi tudd Mafatihul Bichri wax ji nag du mën a gudd ndax xam naa fekk nañ sëriñ bi wax na lim ci war a wax lépp xanaa kon nu barkeelu ci rek ak jëfe ndigal li ndigal li nag mooy kon ndokkeel leen ci ndokkeel ci sama bopp ak mbokki taalibe yëpp ndax tur bi rek moom ku ko dégg doo ko laajte ndax euh, ko xam dégg xam ne mbiri sëriñ bi la kon nag yàlla na euh, niñ leen di ñaanal rek yàlla na leen barkeb tur bi barkeb xasida gi wuyu nag mu nekk mafaatihul bisri ci ci yéen ak ci bépp taalibe ak ci ci àdduna sépp <laughs> wasalaam mafaatihul bisri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna mafaatihul bisri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna